nuyuwaat Mamadou Ama Khadim Diop Ibrahima Playa soxna jaara bu Pastef ah supp Sop Yarasulu euh, j'ai pas j'ai pas très bien euh, lu le mais je pense que c'est ça salaamaaleykum maa ngay déglu télé ba de salaamaaleykum allo oui euh, na ngeen def ça bien ça va Jérôme oui man la si piña man kañ xàmme naa baat bi waaye xanaa na nga tawat <laughs> non c'est que dama de travail rek. ah massa wala grenade lacrymogène nga nooyi. non non pas encore non pas <laughs> encore ñun suba la ñun ñun fii da ngay manifester tranquillement ah d'accord massa massa prompt rétablissement à vous. waaw merci merci merci. Ah, mhm, merci merci beaucoup. donc euh, su may ñëw pour ci thème bi. Mhm. question tontu de. Mhm. mais dañuy wax ne euh, par rapport ak monsieur Diallo parce que moom ma doon déglu noonu moom laa doon déglu dafa am décalage. Mhm. du question dañuy tontu nit mais nit ku nekk da xam ak xeex bi fu mu ko toll. Mhm. tey su ñëwee toog lu ñuy toog Sonko lu muy def nii yëpp pour Sénégal jëm kanam la. moo tax li ko ci fekk fekk ko ci. donc su fekkee Sénégal pour ñun nii Sénégal daf ñoo laaj. même su nekkee politique dañu teg lépp ci yoon. Mm-hmm. xam nañu mbirum politique la. Mm-hmm. lu nekk mën na ci am. Mm-hmm. mais politique ça veut pas dafa war a nekk ay doo wax dëgg. doo wax lu salte. di comment ça s'appelle di saaga nit. nit ku nekk da xool fu mu moom mii di wax sànq ñun ñu ngi nii Europe. balaa ñi xam da ngay nit ki nit ki da koy wax. na respecté yoon. mais day fekk yow nga commencé respecter yoon woone bon exemple ñun néew ñu comme politique la néew ñu bu mu teg Sonko nañ am na ñoo xam ne lu ci ëpp dañ ko ne nañ ko teg ci yoon respecter yoon mhm. li nga koy woo ñëwul nga woo pendant deux ans nit yi gaañu ci ñu ngi kaas pour ñaari nit yi sa veut pas dire duñu jaale ñaari nit yi ah mhm. mais ñaari nit yi gaañu nii ñaata mhm. nit ñoo gaañu avant ñaar ñi ñaata ah. nit ñoo fi gaañu fii ni ñu tiire leen ay balles réelles ñoom en tant que état est-ce que gis ngeen kenn ci si saa si dem jaale au moins famille bi Mhm. wala wax ak peuple sénégalais bi ñi leen fal. d'accord pour pour rappel pour rappel les. Euh, mm en mhm. parlant de de mort par bal les de euh, victimes mm de Ziguinchor kenn ki enterré nañ ko kenn nañ ko démb mu di Badji Diatta je pense que tey lañ ko lañ ko war a enterré aussi fa la ñuy jaar di jaale vraiment. voilà vous l'avez dit toute la population sénégalaise ak ñëpp nga xam vraiment jot nañ euh, am mbokk mu jot a wàññeeku euh, par rapport à vraiment tout ce qui s'est passé depuis depuis depuis depuis ces voilà gis nga ñu defee en général tellement dafa bëri dem ba ëpp doole. Mhm. gis nga li leen doon wax xam yaa fàttaliku bu ñu doon wax bu njëkk ba mooy bi nga nekkee fii ak bi nga nekkee fële yëpp. Mhm. Dakar ci boppam mooy li nga wax xam neexul ñuy ngay liggéey nga ñàkk ah, ak Sénégal fu mu toll nga ñëw nga liggéey lépp yow bokkoo musoo dem politique. Mhm. nga ne ah comme bokkuma ci ñu ñëw nga liggéey ñu ñëw ne birib yàq sa alal yàq ci lépp. Mm-hmm. fekk jàpp la ci tëj la ci en plus ten du la ci fay assurance amul Sénégal. Mm-hmm. du dox Sénégal comme fii nii mais dañu bëgg ne comme dañ fi nekk pour ñëpp xool tey. Mm-hmm. xam yow tey yaa ngi wax Ziguinchor mais da dañoo dem ba léegi sax Sénégal lu ñuy ne démocratie bi dañ ko naxasal lii xew Ziguinchor xewul sa kaar bi sax eggul Dakar pour te dire en exemple. c'est pas dañuy def comme genre propagande peut-être ñu baal ma ci cadre yi tey ñu ngi wax xam nga mhm. Sénégal ñun dañoo am respect ci kanamu armée bi mhm. mais naka ñuy dem ba di sommation militaire yi génn di tir balle réelle ñu mel ni comme loolu amul parce que Dakar dañ ko new ñu ñu yàq de mais il faut que ñëpp ku nekk jóg kii li ko fi teg waru woon waru woon def deux heures de temps de prison fi affaire yu ñàkk fay lañu mhm. te ñu ñuy wax am na beneen genre Euh, événement bu gën a grave bu nar a ñëw Sénégal boo xam ne bu ñu koy wax nii di def rumeur dañuy taal fenn fay fenn dem taalaat feneen pour fay fenn li xaw mhm. Niger dañ na li ministre bi wax mhm. di engagé nañu waxante dëgg yenn caaxaan yi affaire caaxaan dañ ko bàyyi wax nañ leen ko lu ci xew ñoom ñëpp seen responsable état bi génnuñ ci mhm. ñoom ñoo ko ci def léegi comme léegi CPI bi ñëw na bi ñoom ñoo ne CPI affaire caaxaan la ren da nga gis fii nii temps yi nii benn nervi yi. Mhm. lu tax nit yi gëmu leen ñu tax nit yi ngay dégg yenn rumeur ñu leen di ne ay nervi ñoo taal camion bi. Mhm. mais même soo déggee de données mobile bi ak TikTok mais nit seen caméra la ñu toog. Mhm. loo xam ne mosoo ko ci def yéen nga xëy prix beeg ñu ñëw ne la ah ministre bi ñëw na di waxtaan. yow tëjoo sa defoo sa scène de bi. bàyyi ba seen dëkk bi kii bi sax lu tax yeneen dëkk yi comme France duñ duñ ci wax dañuy ñëw di massaw pour éviter wax loo xam da ngay jum di lu ëpp. Mhm. mais Sonko waxoon na na ko ne xeex baa ngi soog a tàmbali. Mhm. te dañuy dem muy gën a métti tant que métti wu si suñ ñun nii nii suñu poche dina métti mhm. lool ku nekk jóg xeexal ak ñi nga mën xeex waxuñu bu yàq dara mais boo demee jëndi tëkkanteeg état état dafa diis ba à ñoom ñëpp dañuy fàttaliku suñu paree ci dëkk bi la ñu nekk suñu jeunesse la ñuy toroxal mhm. léegi du ñu toog di kay def ko ci wax Sénégal dafa loolu dañoo bëri wax mhm. dañuy ne ñii ne ci ñi ne massa yàlla baax na ñii war a wax yëpp wax nañu mhm. bu ñu jaakaarle deux mille vingt et un dañoo ñëw ñaan dañ ko ñaan moom Sonko Sonko moo tax ba tey léegi ñu muy àndal léegi nag jeunesse bi ñëpp gis nañu Mm-hmm. mais dañuy toog duñu xaar de dañoo dem ba instant yi instant wax nañ ko wax dëgg yàlla man de son sama sago du question ay comme ni instruction à la poubelle loolu su suñ résistance moo ñu ko may mais pour waxal ni ki rek mm-hmm. euh, comme monsieur Diallo moom di wax ñun ñu ngi ne Europe te duñu mm-hmm. toj duñu yàq man su may dem demee mooy sama première manifestation man ay poster lay def ay document di gis loo xam ne jaaduwul du koy wax mais soo demee ba gis dëgg léegi ngay la ñuy ne léegi fenn la ñu bëgg a jiital mais loolu moo tax ñun dañuy gëm-gëm lu gëmu ko ñu yàlla mais li ci am yëpp ils sont responsables mhm. kii dañ koy bàyyi te day bokk par mhm. A par B mhm. ça pas dit on respecte pas la loi mais ñoom il faut ñoom ñu respecter ko dañuy bëgg nit ci respecter loi bi te ñoom ñoom duñu respecter loi bi teg ay loi fu ñu jëlul mënoo di ñuy indil ay dañuy instant dañuy jéem a jaxase di ne di ne ay comme ay passé passé di ne distribution parti di di solution loolu loolu mu ngi mel ni en tant que président waru ci woon gul loolu woon moom si boppam day ne institution ñoom respecté wu ñu institution pare ñu ne ñu nañ ko respecté ah, yàlla baax ñu comme ni ñu waxee rek. Mhm. mais surtout continuer di def sa travail comme ni mhm. de temps en temps métti na lool xol bi day tàng yenn saa sooy bëgg sa da ngay bëgg saaga mais mhm. da ngay xam ne suñu saayee tey lii suñu lor ñu ñooy lor suñu bopp parce que média yu bëri waxatuñu. te léegi da wax sax du normal fa jël la jël tëj la ba pare soo ko uti di même presse bi amatul amatul démocratie yëpp Macky moo ko fi indi ah. mhm. moo gën a piir waat. Mhm. mais def day tôt ou tard deux mille mais daal suñ ko mhm. liggéey. waaw léegi dépassé nañu foofu dépassé nañu foofu. doo ki ñu nekk di ne ay na libéré Sonko. mais man de. il faut Macky abal ñu joxewuñu ko nii suñu dëkk. Mhm. mais dina commencé su commencé touché ñëpp économie ak fu mu toll ah nañu mhm. continuer di seetaan di noppi rek d'accord mais Sonko jiwuñu le di en tout cas mhm. Jérôme merci beaucoup waaye jaajëf jaajëf ak ñoom playa <laughs> moo ngi lay déglu moo ngi lay déglu nag man d'accord ma Diallo parce que bokkuñu gis-gis man sympathisant la man waxee duma passé mais sympathisant la mais man Sonko rek parce que à la base koo xam ne bokkul politique bokkul ak ñoom ma mhm. fa ne su ñu amoon dara lu gënoon tuuti ci Sonko par rapport ak ñoom ñëpp di wax fii ni bëgg a jiite dëkk bi moom daf ñuy wax ci biir waxam dañ daf koy leer ne ki ñuy wax nit ko wor mais koy ñëw mhm. moom ci boppam toog nañ dana baal ñu ko man man xam man sama genre yi ñun ñooy yàq dëkk man ma def lii ngeen ne ma baal naa la <laughs> ah na nekk de mais mais mhm. dëkk bi li ñu fi jël yëpp ak scandale yi ñu fi am yëpp ak li fi am pendant dix ans yëpp dañu yow hmm. ba Covid bi ñu ñëw bëgg ñu comp bëgg ne gouvernement bi ce sont ay ñoom ay saint la ñu hmm. ça veut dire lépp manifestant yi ñoom ñoom xale yi di dee léegi hmm. da xool da am ay da ngay am ay master deux mooy dawal charrette wala ñu ne ne cag ak richesse dañoo am richesse ba yóbbu ba pare mais ñu dañuy dem di yalwaani je mën nañ ko fii ba suba duñu jeexal nuyu Playa tout et mën nañu wax mais que ñuy respectante pour voilà. waaw am na ci solo surtout. waa yan am na ci solo parce que c'est vrai man jàll su ma koy déglu <laughs> yi ay loolu moo tax ma décroché fu wóoree <laughs> mais da ngay xam ne nit ki <laughs> da ngay koy xol bi day tàng. c'est pas grave c'est pas grave ku ci nekk ku ci nekk ak position ak xalaatam rek dañ la koy nangul quoi. mais aussi dans dans le respect des uns et des autres ñun mi ñun mi nekk ci biti. Mm-hmm. ça veut pas dire que métti nañu lool man c'est vrai man li may fonctionner noonu laa man ba fii nii ma nekk nii fii man muy gendarme homme de tenue mais soo demee ba toog tey pour suñu président mën ñu déggal dëgg dëgg dëgg mhm. il faut ñu laal étranger parce que wax ak ñun wax ak ñun ci mhm. moom rek laa gis suñu wax day gën a wax suñu ñëw wax mu ne nañ ko ñaan ci njëkk du mhm. question manque de respect tey su ma nekkoon dëkk ba li may wax nii waxuma dara de en général foo ko mais su may génn ñu may teg ma noot sama whatsapp suñu duggee statut su may génn ñu may tënk ma noonu te pourtant saaguma président bi mhm. c'est vrai kii wu yenn saa yi mën nga transfert am na yenn violence yoo xam ne parfois dama koy def saa bi da ngay ne ñoo c'est violent mais pour Sénégal dem Sénégal bu dëgg dëgg dëgg il faut mhm. nga commencé tëgg lekkam ambassades yi waxuñu la ñu yàq de mais bu ñu liggéey pour woon mais lu ci ëpp ñun ñi nekk immigré ñoo koy dugal nit ki dafa doy ñu tëj ko normal ñuy reen non affaire loi boo xam ne ñoom seen bopp respecté wuñu ko Mhm. non man selon sama sago yenn saa dañ koy xalaat duñ ko nangu wax parce que dañ wax si ñu ne waa seen télé moo tax. Mhm. mais ku nekk na def lu muy defee mais suñu bëggee ñun nit koo xam ne su xamee dëgg-dëgg xeex xeex la xam il faut na def yoonaan moom moom moom pareegule moom muy soog a commencé. Mhm. xam ni ñoo commencé mais moom commencé nit koo xam ne violence il faut nga won ko ko gënul violence. d'accord. Ok, j'ai. Merci, merci, merci. Et merci merci. courage à Merci, c'est gentil. Merci, merci. Ok, ok, merci. merci beaucoup Gilbert euh, di kontaan ci moom di ko jaajëfal xam naa nag euh, moom mooy nekk sunu dernier intervenant euh, ci ci waxtaan wi tey ndax vraiment li ñu jëraloon ci waxtu waxtu jeex na wala xëy su nekk am na keneen rek xam naa dernier rek ñu daal di koy jël tàggatu ak moom loo ko mooy itam xam naa rek ñu yëkkati jotaay bi jaajëfal bu baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne vraiment altine ba waxtu wu ñu tollu ñoo ngi doon participer ci waxtaan yi euh, moo xam par message texto moo xam ci euh, commentaire yeeg woote euh, yi salaamaaleykum. ah waaleykum salaam Jérôme comment tu vas. je ngi maa ngi sant yàlla bu baax. waaw woowoon naa la démb ah. man yaakaar naa seen chaîne bi démb laa ko xam démb laa ko commencé suivre quoi mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. mais nag euh, dama amoon euh, benn fixation bu ma doon def rek. Mhm. Euh, c'est parce que dama dama dama gis ko dugg léegi. allo. waaw allo Jérôme. oui c'est par rapport à lan la ñuy waxtaanee wala leneen leen. waaw c'est non non c'est parce que dama gis ko dugg léegi insulter tout le monde mu ne ñuy woote bitim réew mba ay mbaam la ñu naam nu wax noonu wax lu ko neex. allo. oui oui ñu ngi lay déglu. voilà voilà donc euh, donc dafa am wax yoo xamante ne bi bon euh, du du wax du waxu média parce que tamit euh, ñoom dañu tàmm di di insulter nit ñi di saaga te dama yaakaar ne. ñi leen di seetaan ñëpp am na ci ay kilifa bon mm-hmm. enfin genre nit bu nekk ñu ngi leen di seetaan te yaakaar naa di woo wax gi généraliser ne ñi woote ñi nekk bitim réew mi yëpp ay ay mbaam la ñu nàmp moom mi ngi tooñ ba pare mi ngi insulté waa Pastef ne ñoom dañuy saaga ba pare moom mi ngi wax ne Sonko day tëddee ay xale yoo xam ne fukki nit ak fukki at ak juróom lañ am moom moom li muy muy li muy kaas lépp mi ngi def lu gën a bon loolu. Mm-hmm. ma yaakaar ne nit da nga war a maanu fii mën nga fi intervenir ca doo doo dépasser kenn. vraiment nekk mën nga wax sa xalaat. Mm-hmm. bon yow na xam naa ne nit ku baax na nit ku laabir nga mais li ma lay mooy bu nit ñëwatee di insulter say say yi lay seetaan. Mhm. mais euh, xam ne baax nga mais coupé ko. Mhm. da nga baax yow da nga baax man je sais que da baax parce que bu doon keneen daf koy coupé. Mhm. parce que ñëw fii di naan nit ñi ay mbaam lañ di sonk lii sonk laa di wax lu ko neex tamit yooyu du yoon. te li muy wax lépp bon ñun ñëpp ay nit lañ. benn benn dof woote wu fi ñuy wax ñëpp ay ñii leen di déglu ñi leen ñëpp ay nit lañ xam nañ lii di dëgg ak lu dul dëgg. Mhm. Macky Sall ñëpp xam nañ ne li mu nekk du dëgg du yoon ñooñu mooy am nañ leen jaaree ñaar nit ñooñu ñaata nit ñoo fi dee depuis depuis bi événement yi commencé ak léegi est-ce que gouvernement bi mas na dem am yoo xamante ne bii du wax nit kenn waru ko wax ci ay média. effectivement ah. effectivement. waaw léegi nag da ngay jël say responsabilité xam naa ne yaa ma gën a xam sa liggéey foofu mais nag xam naa ne maa ngi lay maa ngi jàkkaarloo ko yow nii ne ku nga mhm. mais am na ñoo xam ne nii buñ fi nekkee di insulté ñi lay seetaan parce que tamit xam nga déjà man nee naa la démb laa leen commencé suivre mais tey dama wàcc rek commencé waat di leen mhm. mais nag bu di di def yenn yi da nga leen di censurer sur le sang bu bu même bu fekkee ne sa fidèle auditeur la mais coupé ko amul problème parce que nit ñi lay seetaan en tout cas ku lay seetaan benn yoon dina la bëgg te dina continuer dina seetaan mais bu nit mhm. ñëwee nag di saaga. Mhm. ak di insulter nit ñi kooku coupé ko ko. parce que li ñu lay yàqal li ñu lay yàqal ñu ëpp li lay parce que man ku mel ne man su ma déglu may woote kenn woote di dugg di saaga di wax naan ñi ay mbaam lañ ñi ay mbaam lañ naam ay kii dama naan non man dootuma seetaan kii parce que dafa am loo xam ne am censure mhm. am na solo merci voilà jërëjëf xam naa yéen ngi euh, bëgg a jeexal émission bi donc tey nag dama liggéeyoon moo tax ma yéex ñëw quoi mais xam naa beneen yoon incha allah. pas de souci pas de souci dinañ dinañ ci dinañ bàyyi xel merci xalaat bi oh. rafet na trop merci merci. merci beaucoup ok jërëjëf di kontaan ci yow bu baax a baax kontaan vraiment ci ñëpp ñi nga xamante ne comme je l'ai dit tantôt lundi ba léegi ñoo ngi doon euh, réagir par rapport ak waxtaan yu am solo yi nga xamante jot nañ ko euh, sekk ak mi nga xamante ne moom moo mujjee woote comme l'a dit vraiment loolu nag dañ koy ne ñoo ñuy euh, woo ndax xam nga comme je l'ai dit tantôt rek képp koo xamante ne tey dafa teg émission bi bi lii day bëgg interaction entre ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan euh, mbir mi soxal leen lool ñu amee ci xalaat bëgg ko daal di joxe ak ñi nga xamante ne aussi xëy na euh, am nañ seen jàngatu bopp par rapport à situation ñëpp rek ñu ku nekk di joxe xalaatam ni nga xamante ne noonu la ko daal di noonu la ko daal di gisee waaye chaque fois